Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi topp Senevision ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi fi nga xam ne mooy yoonu daaru fi nga xam ne fi la jéyee jooju xewoon aw mooy ñaari xale yi nga xamante ni dañ leen a faatoon te jamono yi ñuy àddu yoon teg loxo seen waajur wu góor ndax wax na ne moo def jëf jooju ki ngeen gis ñu jàkkaaroon ak dëkkandoom la eh, soxna si ginnaaw bu la jaajëfal ñu bàyyi la nga présenté wu auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man maay soxna Momy Gaye dëkk ak moom muy sama dëkkandoo ñu bokk dëkk depuis ba mu fi sancee ba suñu joon yàlla tey jàmm ak salaam rek la ñu séq man nag yàlla def na bi affaire bi di am man fekkuma fi ma fekk dëkk bu ñuy wax barkeej ji barkeej ji àllarba laa fi gonte dem barkeej ji ba sedd alxames ma yendu barkeej ji gonte fa ñëw lingeer bi ma xëyee suba ba dagg sama ñaari bal ba tiim ko fëgg jaay laa jaay bi ma ko tiimee noonu laa dégg xebaar ñu di ko wax man bar déglu ni ay kii sax du ma ko dee damaa dégg ñu di ko net li ko net ba mu yàgg ñu di ma ko nëbb am ku dikk wax ma ko ne ma yow ah, yëgoo la xew seen koñ ma ne ko loolu lu mu doon mu ne ma baaratural ni ren ay wuy jaar fa ba ren ñaari doom ah, man na ka loolu dem man ko lii ma daal fay tàqal ko sama sago ba ma paree ma daal ñu takkal samay bagage ma jóge fa ñëw bi may wàcc fi ay trois la fekk fi nit ñi ma dikkaat sama biir kër jaxasoo fi waaye li ma jot a xam ci moom daal mooy ba mu fi dëkkee ba suñu jonn yàlla jàmm ak salaam la séq doomu aadama yi bari na ko moom bari wutu dox bari fu muy dem su liggéeyee damin ba su ñëwee sangu ci biir këram gi aw na yoonu marché dem bu bisu it dikkee dana waaxu dugg ci biir kër yi kenn ku ne mën a baal la àq mu ngeen balonte moom àq mu demaat su xëy kum romb dana nuyoog yow laamin soog yow man de loolu laa xam ci yow moom. ndax mas ngeen daan du tox du naan kooku musuma koo xam ci moom bëggut sax koo koy def kooku moom bëggut sax koo koy def moom. moom loolu moom mën naa koo seere moom lii ma ci waxit damay wax ngir yàlla ak yonte ba jëmmi sëñ Tuubaa ca xam ne bu ñu bokkoon bis bu nu faatu tey duñ bokk bàmmeel kon du ma ci wax loo xam ne si day ñaxel sama bàmmeel léeru ma ne moo ko def léeru ma ne defu ko ndax man fekkuma fi abal fekkuma fi comme fekkuma fi nag mënu ma cee leeral lenn loo xam ne si mën ne lii la. waaw ah, bi nga xamante maam jëf jooju xew na euh, te xamaguñ kan la ndax am nga coppi ko ngeen nemmeekoon ci jëmmam joo xam di nga xam ni kii moom bu moom itam yëf yi jàpp na ko wala des. boobu noonu bi nga xamante si li waral man ma yóbbu ko sëñ Abdou Karim keroog bi nga xamante ni si dal na ko man fekkuma fi bi ñu ko jëlee ba yóbbu ko ba tey gisantiwuma ak moom. léegi bi ko lan bi ko bi lii amee. ba nga xamante si jël nañ ko ba yóbbu ko mu dem hôpital ba génne hôpital ba mu ñëw ñu indi ko fi ñu ko teg man gisuma ko bu yàlla defee jàmm ba nga xamante ni si dem na ba nga xam ne ngi jaxasoo rek magam bee di comme yow miinante nga kër sëñ Abdou Karim ca da nga fa yóbbu ab daayira damaa bëgg ñu ànd dem fa sëñ Abdou Karim ñaana ko loo xam ne xel mi dana destiwaat ndax moo gën mu ne ci fii mu génn di dem sa kenn du ko kenn du ko gis léegi mu daal ànd ak magam boobu ñu mbokk fa dem ba may dem ma woo Modou Fallo ko man de kii neen daa bëgg a ñëw sëñ bi mu ñaanal rakkam bii ah, defoon lii amoon léegi mu ñaana ko su ko ñaanalee pour xel mi desiwaat ndax xel mi daa mel lu xaw a jaxasoo mu bu subaa naan fa tasee ma ànd moom ma xëyee suba ñu dem ban dee ñu toog taatu garab ga Modou Fallo dikk ñu dem Modou Fallo dem ba ca kanam sëñ ba mu sukk ci moom ko ki nga xam ne dañoo loroon ñaari doom bi de moom la fi magam moom la fi magam dikk di ko sàkkuti ak ñaan pour xel mi dikkaat ndax daa mel lu xaw a jaxasoo bi ñu paree sëñ bi daal di ñuy woo ñu dikk toog ci kanam nuyu ko ba daal di siyaare bi ñu siyaaree ba pare léegi mu daal ne ko anam moom ma ngay tane mu ne ko ma ngay tane kay mu daal ne ko yàlla ko yàlla nit mu leer lii moom sëñ bi wax na ko. bañ paree mu daal di koy ñu jënd fa benn butéel Evian. sëñ Abdou Karim wax na ko ne ko yàlla na ko yàlla nit mu feeñ. sëñ ñaan ko ne ko yàlla ko yàlla nit mu leer. bañ paree mu daal di fa jënd butéel Evian ñu jox ko ko mu ñaan ko si su ngeen yeggee dañu ko jox muy naan ci diw léegi xel mi desiwaat ba ndikkee ba ñaari ari baari Cissé bii fi laa tàqali ko ñoom ñu dem yóbbu ji ko man ma wàcc aw yoon wi ñibbisi. moom bi jëf ci xewee ba bin koy tegee loxo lépp mi ngi woon ci kër gi wala daa génnoon kër gi. mu néewtoon fii kay ba mu génne hôpital geneen kër lañ ko yóbbuwaatoon mu nekk foofu. fan yooyu yëpp kër gi dañ ko tëjoon wala ay nit a ngi ci woon. kër gi dañ koo tëjoon moom bi ñu ko tëjee ba nga xam si am na fi ay copine yu fi nekk lañ fi indi benn doom bu eh, magi doom doom magam jooju doom bu góor ñu indi ko fi mu léegi mu nekk fi di di leen may ndox ak di leen xont muy muy benn xale bu góor bu ndaw. jamono ana ah soxna yi de xanaa dañoo ne seen këri mbokk man ba tey gisuma leen man ba dikkee fekk affaire ba tey teguma leen bët. léegi bi ñu ko tegee loxo yow yow mi nga xam te si dëkkandoom nga loo ci yëg yow. Ah, leen ne xool sa bopp rek lu man doon bu la ko suñu borom nattoo woon bu méttee ci ni muy méttee ci yow rek lay méttee ci keneen nga ñeewantu ci rek jullit bu ne jullit nga jullit bu ne ab jullit nga kenn koy danga yërëm sa morom ñeewantu ko ndax métti bu ne métti la rek jotoon ni ab xabtal la wala yu mel noonu. ah loolu dafa dëgg yàlla ba tey dara leeruma ci lo ci njort ah man kay wax deug yaan njortuma ci len ma dal en tout cas fekkuma fi fekkuma fi munu ma ci sene moko def munu ma ci sene defuko dara leeruma yalla rek suñu borom mo xam dila gërem jere jëf jere jëf mbokk yi nak di len wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu len faté di bëss cloche bi moy tax mu len di man di signaler bépp vidéo bo xamné duggal nañ ko ci site bi ngir ngeen man di top suñu programme